ma ne hey béykat bi xalam demoon na béy neex waaye buum nga toog na moom. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay man moom yaakaar naa ni miin ngeen sama kanam Mati Mbodj la nekk euh, fii jeune. dëkk ci Diagane Barka euh, ginnaaw na ba nga xamee ne ñëw nañ fi def fi benn reportage ñëwaat nañ tey ci tool bi euh, gis ngeen ma tey ñi dama ñëw bokk ci emploi yi maanaam dañ ma jël tey ma ñëw ci tool bi tey taxawaayu ma taxawaayu bi ngeen ma gisee woon keroog <laughs> gis ngeen nii rek la initiative la ba nga xamante ne day permettre jeunes yi ñun ñii ñu ciy daan suñ doole parce que ay étudiants lañ nekk taxaw commencé guñ jang liñ dan teud ka yeewu ñew tok nañ fi chaque jour ñu ñew journée 2500 xam nga né lolu kat machallah pour lutter contre jeunes yi nga xamantene dañuy yeewu duñ am liggéey waye tamit dina lutter contre ñi nga xamantene dañuy jël gal gi di dem parce que récemment gis ngeen ko ñi ngi daan gis nombre 480 euh, jeunes yi nga xamantene jël nañ gal gi pour dem te yaakar naa ni loolu noonu euh, ku ci am sa doom muy xey sa xel day gëna dal coopérative bi daal duñ leen wax euh, duñ leen sant rek di leen gërëm parce que kat yaakaar naa ne nit ki ak ni mu toll boo xëyee jox ko liggéey kooku noonu euh, defal nga ko lu nekk yaakaar naa si kaw si kanam rek si lu baax macha allah. man hey kat bi xalam demoon na bay waye bum gedog na mo eh bay kati alam dem na ne waye bum gedog na mo bëggoon nañu yow euh, yow mi jàkkaarloog nga présenté wu ñu wax ñu noo tudd ak sa taxawaay fii lan la

ñun ay jeunes lan boo gisee tool bi professeur Fallou Mbodj moo ko jiit si mbootaay bi si la waaye mu jël ay ndaw ñu ñëw di ñaq di daan seen doole ngir gañi seen wërsëg lu mu yóbbu seenu njaboot waaw loo xamante dinaa ko am naa ko si tuuti si expérience boo xamante ni nii wàllum tukki la ba ma demee nag bi ma tourné laa xam ni man dama doon caaxaan dama doon nelaw jotoon naa nag jardin yàgg naa ko def parce que ci laa juddu si laa yoru ba toll nii ma toll yaakaar naa 2012 laa gëj laa bàyyi woon mbay ni damay seetal leneen lu ma def mais je regrette lu taxoon ma bàyyi bay ni damay seetal leneen parce que temps bi ma bàyyi woon sama mbay dem di seetal leneen temps bu perte naa fi loo xamante ni mënu koo dabaatu ci àdduna loolu moom damay ñaax ñëpp jeunesse bépp ñu góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ci an ci mbay mi ndaxte boo bayee nawet trois mois nawet nga bëgg a tëdd neuf mois loolu doxul loolu doxul wax dëgg yàlla neuf mois yi mën nga fee loo xamante ni moo man téeméeri junni yéen trois mois yi mën nga fee bay boo bayoon sa soble ñaari hectares soble ñaari hectares pomme de loolu ndax nit man na koo dunde kon nanu xoolaat bu baax a baax a baax a baax li ñuy def mooy lan nañu xoolaat bu baax ñu gëm suñu bopp xam ni mbay mi dara yëmul ak moom dara mënuñoo am lu mel ni dundal suuf suuf dafa am ñaari bénéfice loo ci def pertoo ko te yaa ngi ci jaamu sunu borom ndax suuf dundal ko rek jaamu yàlla la di bay muy dara ngeen gàncax ban fee taxaw sax loolu rek ak jaamu yàlla wax dëgg yàlla. macha allah kon ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu waa Bibi tey la woon fii ci Diagane Barka ci toolu Bibi bàyyi Barça dem mbay di leen gërëm baax a baax di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw yàlla moom la parce que xamante wunu bu yàgg sëñ Fallou moo nu fi indi ñu bokkoon ñoom ñaar ñu ànd di liggéey bi ñu xamante si benn groupe WhatsApp si la xamante ba yàlla def di tey mu indi fi sëñ Fallou ñoom ñaar ñu ànd di liggéey mu xam ni gis ni ni njariñul liggéey njariñul développement Sénégal mi ngi ci suuf si ndaxte lépp loo xamante ni Sénégal da koy jëggaane rek yakarna war nañ ko wara mëna def exploiter ko fii ndaxte jëmono ji ñu toll bo gisé lu bare bare bare bare Sénégal diko ko jëggaani buñ toogee fi man nañ ko fi def pomme terre bi nit ñi dundé jëmono ji ñu toll ni serna na soble jamono ji ñu toll ñi ñi toll si 12500 mille cinq fopp soble vingt cinq kilos ci douze mille cent te bayoo ko sam réew dan na koo indil tey lool wax dëgg yàlla yaakaar naa ne bu nu góorgóorloo tuuti bu ñëpp defee ni président na siiw yaakaar naa loolu dina am parce que fii juróomi hectare la te am na yeneen tool du tool bii rek am na yeneen ñetti tool yu nekk fële boo xam ne benn bu ne la ak lu topp tey bay benn bi yi def nañ fa gàncax yu bare bari pomme de bi soble bi lépp te fi ñaari hectare pomme de ñaari hectare soble ñaar hectare xaar yaakaar naa ni bu ñu ko defee def ko feneen def ko feneen bu yàggee Sénégal dina am lu ñu dund incha allah. macha allah. daal bi nag Baye Mbaye Niass ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu grand Siré Faye suñu xarit Souleymane Ndiaye Souleymane Diallo ak Sall jëwriñu tool bi waa li tax bi bi bi Baye Barça taxawal lii dañ gis situation àdduna lu muy doxee ñu iya, kooperatif, coopérative kooperatif, coopérative bi bi bi bàyyi Barça dem bay parce que dañu def jangat bo xam ne bi feebar bi amee suñu ndaw yu bëree bëree bëri dañ des ci géej des boobu nag ñu jangat xam ne ñu ñëpp am nañ ci part de responsabilité ñu ne kon léegi nañ jéem a ut solution solution bi ci lañ taxawal coopérative boobu biñ ko taxawalee ñu ne tey képp koo xam ne sénégalais nga foo mënta nekk ci àdduna bi mo xam yaa bitim réew wala ci waaye ñi ëppagum na ñu bokk waa bitim réew la loolu it xañ na am na lu ko waral parce que dañ ne kenn koo xam ne da nga ci bëgg a bokk da ngay joxe un million loolu moo waral loolu parce que boo xoolee fii liggéey bi nga bàyyi ci xel xam ne kii fii kat financement bu am doole mu ngi fi li waral loolu it kon mbooloo ñoo koy mën a dem mbooloo moom nag ñu def faat beneen jàngat boo xam ne lépp loo xam ne dañ ko def ci bitim réew muy wàllu liggéey wala wàll lu ñuy naan wala yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu ñu ne dañu commencé suñu réew mi tey milliards yi nga doon dem bitim réew ñu fexe kat mu yem fii fu ñu réew suñu réew parce que am nañu ndox bi am nañu naaj bi am nañu suuf si am nañu ndaw yu ko def wax dëgg yàlla moo tax foofu. waaw macha allah Baye kàddu yi am na solo waaye bëgg nañ tuuti rek ndax sànq da nga wax lu am solo bii bi mbootaale boo xam ne dafa jóg pour fexe bëgg ndaw ñi. toog ci biir réew mi liggéey daan seen doole am seen bëgg-bëgg yow nga joxe ci exemple ne euh, ndaw yi nga xam ne ñu ngi jugee fii Saalum di dem bitim réew di dem lu mel ni Dakar yow mën ngaa firnde ne mënoon nañoo toog seen biir dëkk di fi liggéey di am lu ñu bëgg nekk ci seen njaboot te ñu am benn jafe-jafe loolu déjà ñu gis ko bëggoon nañoo xam tey ndax fekk neen ay ndaw yu toog ak yow bëggoon nañoo xam équipe bi équipe bi fi liggéey actuellement ñaata lañ toll. ci ay ndaw yoo xam ne gis nga leen fi ñu ngi fii ci biir tool bi di fi liggéey. waaw équipe bi nga xamante ni ñu ngi nekk ci tool bi di liggéey euh, xaw na noo sakkan parce que fan yi moom six personnes lañ doonoon mais tey dafa am yeneen trois personnes yoo xamante ni dolliwaat nañ ci kon yaakaar naa muy neuf personnes mais du tool bii rek la liggéey euh, parce que bu fekkee bii bii bii bàyyi Barça dem bayi dañ ni nanu dimbali ñi nga xamante ni dañuy jël gaal gi di des ci géej gi ñu toog seen dëkk mën a dimbali seen réew seen i wayjur di leen gis lépp loo xamante ni ñu ngi koy gagné ci seen réew mu yemaat ci seen gafaka man mii di wax ak yow inigré naa jot naa seen mos parce que mhm. dem na dem naa Congo am naa fa trois ans benn am naa fa un an man yaakaar naa ni am na tuuti loo xamante ni am naa ko ci tuuti ci expérience boo xamante ni yoo xamante ni nii ñi newoon si état sax ñoo ko war a def moom moo jël engagement boppam di ko def te dëgg yàlla bu ñëwee fii di bay ginnaaw yàlla moom la parce que xamante bu yàgg sëñ Fallou moo nu fi indi ñu bokkoon ñoom ñaar ñu ànd di liggéey bi ñu xamante si benn groupe euh, WhatsApp si la ñu xamante ba yàlla def di tey mu indi fi sëñ Fallou ñoom ñaar ñu ànd di liggéey ñu xam ni gis ni ni njariñul liggéey njariñul développement Sénégal mu ngi ci suuf si ndaxte lépp loo xamante ni ni Sénégal da koy jëggaani rek yaakaar naa war nañ ko war a mën a def exploité ko fii ndaxte jamono ji ñu toll boo gisee lu bare bare bare bare Sénégal di ko jëggaan yi buñ toogee fii mën nañ koo fee def pomme bi nit ñuy dunde jamono ji ñu tool nii seer na saaku soble jamono ji ñu toll ñi ngi ngi toll si 12500 mille cinq fop soble 25 kilo ci 12500 te ba yow ko sam rew dan la ko indil tay lool wax deug yalla yaakaar naa bu nu gor golo tuuti bu ñepp defé ni président Nassirou yaakaar naa lool dina am parce que fi juroom hectare la te am na yeneen tool du tool bi rek amna na yeneen ñetti tool yu nekk fa boo xam ne benn bu ne ñaar hectare la ak lu top tey bay benn bi yi def nañ fa gàncax yu bare bari pomme bi soble bi lépp te fii ñaar hectare pomme de terre ñaar mënu ko kon nag di ñaaxaat ñëpp ñu góor góorlu bu baax a baax a baax ci suuf si di leen jaajëfal bu baax a baax waa bii bi Baye Barsa de Mbaye macha allah kon fàllu numéro 2 euh, la ñuy wax ndax fàll moom sëñ fàllu mooy sëñ saaliwu sëñ saaliwu mooy sëñ fàllu mm-hmm. macha allah kàddu yi rafet na am na solo Euh, te comme ni nga ko waxee tamit am na solo buñ ko waxoon rek am ci euh, wax ji du la jaaxal waaye liñ wax ba pare moom lañ jug pour jëfee ko waaye ba tey Baye Zal euh, yow yaa ngi ñëw fi ànd ak sëñ Fallou di liggéey waaye commencement liggéey bi ak ki nga xam ne tey mën nañoo wax ne mooy premier jëwriñ yi bii bi bar bii bi muy Mouhamed Nazir Cissé sa jëflanteeg moom depuis ba nga fi ñëwee ba léegi lan nga ci mën a joxe comme ay témoignage loo xam ne xam nga ko ci moom wala gis nga ko ci moom daal mu neex la waaw wax dëgg yàlla Nasirou li ma gën a gën a gën a neex si moom gën a motivé si moom mooy day suqaleeb dëkk te parce que nit ku bëggul dëkkam rek mooy dem du gëstu dëkk tund tund commune u Diagane Barka bii dëkk yi mu fa deful dem sampal leen ay pano ñuy roose si si jigéen ñi néew na lool lool loolu yaakaar naan ko ku sa sa gox moom doo ko def te du fi mairie du fi dara citoyen la comme ñëpp kon moom dëgg yàlla day def acte yoo xamante ni ñi newoon ci état bi sax ñoo ko war a def moom moo jël engagement boppam di ko def. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa CS euh, coopérative Sénégal wala Sénégal coopérative euh, ak seen slogan bu mag boobule di bii bii di tegtale bàyyi barsa bàyyi. Eh, motax nak nag eh, fii nga xamanteni mom modi jagan di Barka nek ci eh, département bu Foundiougne nek tamit si arrondissement bu jilor tay jilé département bi yépp mëna la wax né la commune bi yépp dal dinañ siggi top ci li nga xamanteni mom modi slogan bi fi wa CS indi liko waral nak ak li tektalé moy né tay ji bo xolé ci sama ginnaw ay goor ak i ay mak ak ndaw ñom ñoo fi dal di dajalo ci naaj bu tang jër di liggéey di wane né ñepp bëggoon nañu liggéey ñepp amon nañ ambition bi mais won yoon bi xamuñu woon fu ñuy jaar ñi nga xamanteni nak ñom ñoy wa Bibi ñom seen euh, bëgg-bëgg seen ciakutef moy euh, génné semence ci biir réew mi euh, génne ñàkk ci biir réew mi indi développement bu sax té loolu mënuñ ko am ci lenn lu dut li nga xamanteni mom modi di bay nord di bay nawet bu ñu xoolee tey jëlee ci weer yi sak at bu yalla sak da nga daan gis tool yi dañuy vidde liko dalé ci mois de décembre ba mois de juin kon tay ji bu ñu nekkee ci 30 janvier 2021 bi nii ñu gis né ay hectare ñaari hectares yu takkoo takku euh, nekk fii ñu aménagé ko ba mu baax euh, war fee ji soble ngeen gis ne euh, jigéen ñaa ngi noonu le si tool bi di ji soble naka noonu le si wàllum pomme de terre fi ma taxaw nii déjà def nañ ci engrais mu nekk liggéey boo xamante ni lu ama ama am njëriñ la ñeexal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko initié ñeexal tamit ñi nga ñoom ñooy Euh, emploi yi nga xamanteni ñom ñoy liggéey fi ci bi tool bi euh, mu nekk lo xamanteni yaakar na né saluer bi ci président de la république bi sa ci la wara ñëk rawati na nak euh, commune bi nga xamanteni ni di commune jagan Barka ak i maire ak ñi nga xamanteni ñoo jité département bu Foundiougne. ay mu jël ay ndaw ñu ñu fi di ñak di dan seen doole ngir gañ seen wërsëg lu ñu yóbbu seenu njabot waaw lo xamanteni dina ko ñaax jeunesse bi tuuti rek lo xamanteni ni mom ñu koy fawé moy ñi nga xamanteni ni salum lañu joggé jëm ndakaaru njaay té ndakaaru mo mëno fa am salaire 100000 francs nord bi mëno ko fa am kon yaakar na ni mom ñew fi tok salum man fee am salaire 50000 bu wër dé ñu jox la ko gam fogu duggal mo gën nga nekk ndakaaru njaay am fa 100000 parce que bo amé 100000 mille ndakaaru njaay quatre vingt mille ko lekk dina demaat ci yow yaakar na ni moom maa ngi koy ñaax ñëpp ñu ñëw fii waaye ah, li ngeen gis pomme la fii leen ko bëgg a def installé nañ ko tàggu ji ba pare di ko tooyal ni xam naa ni incha allah fii ak uh, suba wala ginnaaw suba dinañ ji pomme bi ñu nag sunu équipe bi yëpp parce que comme que professeur néew fii maa fi nekk ah ñu wax si kàddoom rek di leen jaajëfal bu baax a baax xam naa daal di ñaaxaat ñëpp ñu ñëw dundal suuf si ndaxte nit deful lu gën dundal suuf si suuf rekk nga mën a jox def si ay millions génn ci ay milliards loolu moom suuf dong nga ko man leneen mënu ko kon nag ñi ñaaxaat ñëpp ñu góor góorlu bu baax a baax a baax ci suuf si di leen jaajëfal bu baax a baax waa bii bi Baye Barça Demba Mbaye macha allah kon fàllu numéro 2. Euh, waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ba tey ñu ngi fi ci Diagane Barke ci benn. tool boo xam ne ki nga xam ne tamit mooy Souleymane Ndéné Ndiaye moo ko moom euh, waaye yéenam tamit bokk ci jox ko kuréel gi ñuy wax bii bi bàyyi Barça bay gannaaw bi nga xamee ne jox na leen cinq hectare ñu commencé ko exploiter ci mbaaxam ak gis bii bi ci seen farloog seen bëgg liggéey mu ne leen bu ngeen bëggee trente hectare pare naa pour jox ko mbootaay bi ñu ñëw fi tey ne defi visite de terrain pour xool suuf si macha allah ñu fekk fii ñaari qualité de suuf fekk nañ fii lu ñuy wax argile noire mais fekk nañ tamit lu ñuy wax deg joor mu nekk wax dëgg yàlla suuf su xam ne ku ko gis xam ne suuf su baax la suuf su dund la mën na liggéey moo am tamit beneen avantage mooy jege lu ñuy wax forêt nga xam ne microclimat bi yëpp di nga ko mën a am ci biir tool bi ci gàttal daal suuf su fi liggéey daal mi ngi fi moyens yu ko liggéey daal moom lay nit ñi di xaar ak xam-xam bu ko liggéey waaye ku dem ci cinq hectares ba fekk fa macha allah sëñ fàllu professeur Fallou Mbodj nam fa def ak uh, ndaw ñi fay yëngatu uh, mën nga wax ne fii tamit bu yàlla defee bii bi yegg ci tamit noonu rek lay demee kon ñu ngi koy tënk ba beneen yoon di jaajëfal ñëpp salaamaaleykum ku ñu wax Mouhamed Nazir Cissé waaye ànd ak ku ñu wax Chérif Ndiaye Chérif Faye ak euh, Souleymane Diallo ak euh, Saliou mën nga ñëw bokk ci waxtaan bi ndax waxtaan bu ama am solo lañ bëgg amal mm-hmm. gannaaw buñ nuyoo ñu ngi ci tool boo xam ne benn kuréel moo ko taxawal bu ñu wax bibi mu nekk ay doomu Sénégal ñu ci ëpp nekk ci bitim réew di fa yëngatu di fa daan seen doole ñu dem ba jamono ñu nekkat ñoom bëgg nañoo bokk ci doxalinu réew mi naka jekk comme ni ñu koy defee ndax ñi xam Sénégal xam nañ ne suñu bit yeeg suñu lépp daanaka li ci doomi réew mi nekk bitim réew ñu leen wax moodu moodu liñ ci def lu ama am solo la ci suñu économie waaye tey ñu dugg ci benn projet boo xam ne ku ko dégg rek di nga ko rafetlu ndax euh, pas-pas bi mooy bàyyi Barça bay ñu ñëw tey ci barab bi euh, fekk la fi yow en tant que Mouhamed Nazir Cissé ak Chérif ñu ko nu ko waxee bëggoon nañoo xam bii euh, bi naka la def wala naka ngeen def en tant yow ak doomu Sénégal yooyu ba xel dem ci ngeen mën a taxawal lu mel nii. waaw alhamdulilah rabbil aalamiina Baye Mbaye Niass ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu grand Serigne Faye suñu xarit Souleymane Ndiaye Souleymane Diallo. bun ve tot namo he bay kati alam de mana bayne vaye bun ve tot namo bulane khe talal tayla Jeg tok tapi pasti på di Ikke der er sin dumre Oba til misken Jeg kommer på du der så nak bili bige Tanya kadi tur ngay bay am jom ukijivya kadunga Assalamu alaikum wa rahmatullah. seen mbokk la seen xarit technicien Fallou producteur moo leen di nuyu fii ci toolu bii bi bi bàyyi Barça dem bay fii ci région Fatick fu Foundiougne ci diwaan bu naan Diagane Barka fii la tool bi nekk di toolu bi bi bi bàyyi bay mu doon mbir mu am solo liggéey bu am solo lépp jëm ci wàllu xeex Barça barsaq lépp jëm ci lool lu ko xeex moo taxoon ñu taxawal lu mel ni doon xalaat lu am solo ñi ko taxawal di doomi réew mi ñenn ñi nekk bitim réew ñenn ñi nekk fii Sénégal euh, semaine bi passé nag lañu ñu commencé woon installation yi yàlla dogal mi ngi sori ba tey ji doon vingt cinq janvier deux mille vingt ci lañ commencé. Eh, sebi pom pom de terre bi mhm. ñu ngi koy semé tey jii eh, équipe bi fi nekk it wax dëgg yàlla ñi ci ëpp bu passé ñi nga xam ne équipe bi nga xam ne ñooy liggéey ci tool bi ñi ci ëpp ñi ci des ñëpp ci dëkk bi dañ jógee loolu nag day wane ni xalaat bi comme niñ ko xalaate won sama borom mi ngi ci dimbali ndax développement réew mi rek lañ ci jublu te ku tuddu développement réew mi ñu ngi koy sàkkoo ci gox goxaan yi kon li am fii wane na ni xalaat boobu yàlla mi ngi ci dimbali di ci dimbali coopérative bu bahaba. a baax ndax bu nee bàyyi Barça dem bay kon kenn ku ci nekk fa nga toog war nga am loo fa a jëmmal am ci loo jàpp am ci loo mën a yëngu ndax bu ni dañuy jël ay journée di fay ah journée yooyu wax dëgg yàlla dina am bunt yoo ah dana ko fat ba tax ki nga xamante ni ah xelam nekkatul ci itam kon xelam dina nekk ci toog fi mu dëkk fas bayuaram, bay waaram bu nee bay waaram nag ah bay ko ci suuf si delu ci suuf si kenn ku ci nekk la nga man nga def ko ki am moyen bu bu am solo mana a commencé def la mu tollool yawit la nga am tolloog mom defal yalla man na ci tek loxo aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki senegal cooperative bbb bii barsa bay ni ngeen alhamdulillah mang leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar baax a baax a baax te sàkku ci yéen kenn ku nekk ci yéen mu doole ñu defal ñaan yàlla defal ñu tawféex ci liggéey bi nga xam moom lañu seq eh, defal ci lu kawe suñu jot ñu nepp yàlla yàlla nangu ñaan amin eh, ma ñëw di leen présenté liggéey bi nga xam def nañ ko ci telegram bi eh, bu ko defee tamit sàkku ci yéen képp koo xam ne gis nga ci liggéey bi loo xam ne nii jàpp nga ni mënoon naa gën a baax te nga am ci xam-xam nga baaxee ñu ko jubbanti ko ndax liggéey bi liggéey la boo xam ne nii ñun ñëpp li ñuy volontaire rek waaye liggéey bi moom kenn fay fi kenn naa payu yàlla lañ soxla yàlla na yàlla boole fay ñu ñëpp euh, telegram nag dafa nekk loo xam ne lu am solo ndax bépp document boo ci denc téléphone sa téléphone réeroon ba euh, leneen xew ci tamit boo amee beneen téléphone bu bees euh, lépp lu ci nekkoon day mën a ñëwaat ci sa téléphone bu bees boobu moo tax ñu soññi mbokk yëpp dina encouragé daal ko maanaam nga jëm ko am boo ko defee lii mooy liggéey bi nga xam ne maanaam tàmbali nañ ko ci telegram bi ci lu jëm ci wàllu euh, Sénégal coopérative bii bii bii bàyyi Barça bàyyi xale bi ci kaw ni bi ñu defee bisimilah rahmaan rahim ba pare indi benn aaya alxuraan ci kaw euh, ñu def benn transcript texte boo xam ne ci suuf Sénégal coopérative bii bi bii bàyyi Barça bàyyi taxawal na liggéey bu toll ci neuf cent quatre milliards fii ak neuf ci kanam ak junni junniy liggéey tàmbalee ko ci le douze décembre deux mille vingt loolu nag suñu yéene la ak suñu taxawaay fas yéene tàmbali ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy sottal mu sottal suñu yéene ak suñu euh, bëgg-bëgg léegi boo gisee ni photo bi ci topp nii mooy logo logo bi nga xam ne mooy logo bi euh, bi ñu bind ci Sénégal coopérative SC BBB Baye Barça bay nga wàcc ci suuf euh, moo répété même texte bi ci kaw photo bi ñëwaat ni encore nga xool am na benn am na benn vocal bi nekk ci kaw foofu xam naa dañuy doon encouragé mbokk rek ak wax suñu taxawaay ci liggéey bi euh, ku delluwaat ci telegram di ko mën a déglu. boo xoolee fi tey tamit euh, premier numéro bi nekk ci ko waxee façon ne yéen a bokk ci liggéey bi te moo fas yéene nekk première bu njëkk a participer comme ni mu ko waxee ci vocal bi xam jàll na ko démb macha allah kon loolu wane na ko fii. ñi ngi sàkku tamit ci mbokk yi képp koo xam ne nii gis nga sa nañ ko bindee wala nañ ko liire bokkul ak nanga ko sàkkoo na nga ko bëggee nga baaxee ñu teg si na nga bëggee na nga bëggee ñu bindee ni sa tur bu ko defee ñu jëm ko édité dugal ko na nga ko sàkkoo incha allah. Ah, bu ko defee ñu continuer numéro 2 Fallou Mbodj numéro 3 Baye mbay pardon numéro 3 Mbaye Ndiaye numéro 4 Talla Ndiaye numéro 5 Astou Ndiaye numéro 6 Ababacar Dieng numéro 7 Talla Gadiaga numéro 8 Baye Mor Ndiaye. numéro 9 Mao Diouf numéro 10 Serigne Gueye numéro 11 Malick Cissé numéro 12 Mourtala Ndiaye lambay Mourtala numéro xam naa Lambaye ji war ko fixé parce que dafa mel dafa xaw a euh, taqaluwul ak euh, Lam ak Mor Ndiaye ji waaye daañu ko defaraat incha allah numéro 13 Cheikh Sarr numéro 14 Abdoul Majid Diop numéro 15 Djibril Cissé Canada numéro 16 Modou Diop Colorado numéro 17 Seynabou Fall numéro 18 Baykundul numéro 19 El Hadji Diop Las Vegas numéro 20 Ibrahima Ndiaye Sarr numéro 21 Malick Diouf numéro 22 euh, Abdoulaye Diané numéro 23 Ousseynou Cissé numéro 24 Dame Ndiaye numéro 25 Abou Abdallah Wilane numéro 26 Abdou Thiam numéro 27 Ndeye Touré Lo numéro 28 Samba Ndiaye numéro 29 Mohamed Lo numéro 30 El Hadji Ibrahima Diop numéro 31 Mohamed si numéro 32 Soxna Salimata Traoré numéro 33 Makhtar Wilane numéro 34 Mohamed numéro 35 bàyyi mbay ñas numéro 36 Cheikh Fall euh, kon foofu lañ toll ci ñi nga xam ñoom ñoo cont ñoo ñoo cotisé seen euh, cotisation un million franc CFA euh, loolu nag tàmbali la boo xam ne dañ ko tàmbalee waaye yàlla maa dogal mu ba ci kanam xëy na boo ñu waree dolli fa ay cotisation martiale maanaam loolu ñu dolli ko ci waaye loolu ñuy waxtaanal te tënkaguñ ko wala tamit carte membre waaye loolu ay mbir la yoo xam ne àgguñ foofu li ma la wax fi daal ci gàttal mooy képp ko xam ne xool nga sa tur ko bindee bokkul ak na ko sàkkoo nga baal ma nga teg ma na bëggee ñi bind sa bu ko defee ñi mën ko éditer dugalaat ko ci biir incha te it ñu ci mbokk képp ku nekk ñi kenn ku nekk ci yéen mu jéem am telegram bu ko defee tamit lu seen jumte mën ñu ko baaxee ñi dem ko jubanti incha allah kon ñu ngi nuyu mbokk yëpp tey ziar baax a baax nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu